Sénégal RTS daf ko jébbal benn projet ne état bi mbirum rajo ak télé dafa nekk di soppeeku te suñu continuer di liggéey nii dootuñu méngoog jamono te ñëpp dinañu raw parce que informatique bi mu ngi ciy dugg numérique bi maanaam dugg na ci doole caméra yi amatul ay kaset ay carte la ñuy am donc man ak sama ay collaborateur ñu tabax projet boo xam ni presque vingt milliards la euh, président Macky Sall nangul ñu ko benn pàcc bi mu jëkk ko génnee ci francophonie ñu acquérir benn parti matériel bi loolu moo tax ba ñu réussir couverture sommet francophonie 2016 mu mottali financement bi looloo ñu jàppale ñu assurer couverture élection législative yi presque quarante listes la woon du lu yomb te loolu ñu obligation la woon ci ñu ñu assurer couverture élection présidentielle assurer aussi presque en direct tous les conseils des ministres délocalisés gis nañ ñu fépp loolu aussi jàppale ñu ñu ubbi rajo Sédhiou ubbi rajo Kaffrine ubbi rajo Kédougou donc loolu soo ko booleeg télévision zonale bi bu nekk tàmba ak télévision zonale bi Ziguinchor ak boo xam ni war nañ ko ubbi ci maatam nga xam ni investissement bi foofu la dem bi ñu tukkee nag dem gis nañ nag que franchement pour l'essentiel station yëpp vraiment am nañ xar kanam bu bees te kooku liggéeykat yi fa ne ñoom ñoo ko wax te ñun wane nañ ko ci télé bi gis nañ ni li leen doon manqué ci mobilité problème oto li leen doon manqué ci maanaam ay casque ay enregistreuse loolu yëpp ñu régler ko ñu def aussi ay investissement yu takku ci émetteur pour que ñu mën a jottali émission yi tépp ci région yi loolu ñu kontaan si lool e liggéeykat yi aussi rafetlu ko population yi aussi rafetlu ko wante dañu remarqué ni que malgré effort yooyu centre émetteur yu am ay émetteur yu bees ak yépp studio yu am ay équipement yu bees ah rajo yi doo leen dégg partout dafay am ay zone de silence ni ko ingénieurs yi di woowe foofu nag lenn li ñun ñoo matalewul mbirum satellite mbirum nu ñuy jokkale station yi ak centre émetteur yi mais leneen li ci gën a bari problème internet la Sénégal tour bi ñu def daf ñu won ni soo taalee sa téléphone internet du la wuyu tout réseau doo ko am tout te loolu dina metti trop su fekkee TNT bi maanaam télévision numérique terrestre nga xam ni lu ci bari ci fibre optique lay jaar suñ ko matalewul dina am problème parce que TNT incha allah bi nar a ñëw dafa wéer performance am yépp ci côté n'est-ce pas fibre optique heureusement que ADIE am na fi mu ngi def liggéey bu rafet mais ARTP ci suñu xalaat war na gën a taxaw parce que rôle am mooy saytu loolu la qualité de service mais ñun jooytu nañu ko lool parce que dafa nekk di gàllankoor suñu liggéey incha allah loolu message boo xam ni dinañ ko jottal autorité yi parce que tey internet mooy base liggéey di ngeen gis sax presque dootul amati yenn satellite yu ngand yi dootul amati yenn pylône yu ngand yi yëpp ñu ngi koy jaarale ci suuf télé bi di ci jaar rajo bi di ci jaar internet bi di ci jaar te loolu mënuñ ko comprendre parce que aussi su ñuy demee bay def TNT c'est pour libérer fréquence yoo xam ni da nga koy jagleel normalement ay bande passante pour que ñu gën a mën a am internet alors leneen li dañu seetlu ni aussi que ci suñu station régionale yi am na doxalin bi ñu bu ñu teg te loolu yàgg na loolu daf leen tënk te nu leen tënkee day gàllankoor également seen ay performance ñu décider ni ñun ak ñoom dinañ toog incha allah xalaataat nan ban type de gouvernance nan lañ leen di yore wala sax nan la ñuy yoree ñoom seen bopp gën a am autonomie koom bi ñuy am ak bi leen di niveau centrale bi di yokkal nan lañ ciy mën a payer euh, seeni agent nan lañ ciy mën a jëndee carburant parce que imagine que même groupe électrogène bu station Mbacké wala jurbel euh, su amul carburant Dakar nga war a woo pour mu jox la carburant kooku amul sens sa groupe électrogène su paane amoo droit jël prestataire de service il faut que nga woo Dakar pour que nit ñi ñëw dépanner la donc alors que station yi ñu ci bari ñu ngi produire ay recettes publicitaire am nañu ay caisse d'avance loo xam ni war nañ ci gën a taxaw pour mu gën a régulier mais aussi yokk caisse d'avance pour nga wut agent buy bale il faut nga def appel d'offre national te tey ñu ngi wax décentralisation acte trois territorialisation des politiques publiques kon danga war a jox entreprise gox bi n'est-ce pas les opportunités pour que ñoom aussi ñu war a ñu mën a jàppale nguur gi mën a également consommer ci l'argent public mais su fekkee lépp dañ ko centraliser dafay euh, vraiment handicapé euh, performance su euh, rajo yi ak télé yi kooku aussi incha allahu rabbi dinañ ci taxaw bu baax a baax